asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di représenté wu man la Mbathio Gueye euh, nekk guitare Wareef avec le président Alhassane Niang nekk si coalition naataange askan bi avec le président Alhassane Sène waaw bëggoon rek euh, askan wi xam ni seen doom mi ngi yëngu si benn coalition bi ñuy wax naataange askan wi ànd ak euh, avec le président Alhassane Niang ñu bëgg dal vraiment nekk si dëkk bi liggéey liggéey boo xam daal nañ set dinañ changé xar kanamu Jurbel euh, parce que li fi gis yëpp xam nañ ni daal assemblée nationale foofu la ñuy joyantee suñuy mbir pour lu ñu bëgg ñu am ko te dëkk bi nekk na boo xam ne dafa arrière nekk si gannaaw te suñu sañoon nag wax dëgg yàlla tey ji am changé engagement boo xam ni nañ xam ne député assemblée bu nekk Diourbel fisal la ko te mi ngi def loo xam ne pour Diourbel am am dem dem jëm si kanam. liñ fa war a soppi bari na parce que boo xoolee tey si njàng mi war na am changement soo xoolee tey si si dund wi metti na. soo xoolee tey si tamit ni ni assemblée tamit di doxalee député tamit ni ñuy doxalee tamit war na am tamit sa coppite donc ñu suñu suñu coppite bi ñu bëgg si assemblée nationale mooy tey ji bu ñu taxawee assemblée def fa jëf joo xam dinañ xam ni ñii ay député yoo xam moom lañ soxla woon ci àddina moom lañ soxla woon ci Sénégal moom lañ soxla woon si Diourbel taataan fa jooy euh, jo euh, taataan fa problème mu askan wi nekk fii si Diourbel bu ñu demee yóbbu ko si assemblée nationale ndax ñu am li nga xam daal moom lañ bëgg changement boo xam nañ xam ni député yoo woon ak yi du benn rëq-rëq yooyu ñu war a jojol Euh, ñu ngi siy def ay jéego yu mag a mag parce que ñu ngi xool tey jii euh, santé boo duggee bala ngaa def dara da ngay fay te Alhassane Niang mi ngi préparer loo xam ne tey jii bis bu xamee amee am na assemblée nationale majorité bi nañ fa def loo xam ni tey jii nañ xam ni tey santé dina am développement si lan tey jii boo feebaree war dem hôpital bëgg nañu bala ngaa am leen loo xam rek mën na mën nañ la def da nga faju ba pare soo fajoo ba pare nag ñu doog a nag liggéeyante leneen donc am na carte yoo xam ne Assane mi ngi koy préparé lépp rek si bu amee majorité assemblée nationale santé dina développé dina am changement ku feebar tamit dootul tiitati da nga xam ne yow mi loo mënti dal tamit bala nga am leen looy def rek dina la faj pare doog laa laaj la ca war. bu ñu koy doxalee baaxul. Euh, bu su baaxee tamit des na lu baree baree baree bare donc politique publique Alhassane Niang mi ngi siy def ay jéego yoo xam ne incha allah bis bu ñu yàlla mayee majorité assemblée nationale di ngeen xam ni daal politique publique yi am fii ak yi Assane teg pour Sénégal am na tamit différence bu baree baree baree baree bare treizième législatif bi di ma ko gisee mooy daal euh, mënoon naa gën a xumb ndaxte ren euh, du Sénégal rek du du Diourbel rek Sénégal yëpp la gars yi dañoo changé seen méthode campagne porte à porte yu ñoo ba gën a bëri caravane yi aussi euh, moom euh, bëriwul daal te tamit tamit li ma si gën a métti aussi mooy xastante bi ak ŋàññante bi nga xam ne moom moo nekk si yeneen coalition yi ku si nekk yaakaar ni sa coalition moo gën coalition moroomam donc loolu tamit nekk na loo xam ne ñu ngi koy métti lu trop le meeting d'aujourd'hui, euh, c'est pour vraiment mobiliser les, les, les habitants de Djoubel pour, euh, pour que Al-Hassania soit connu à travers tous les habitants de Djoubel, à travers le Sénégal et à travers le monde entier. Donc Guita le devoir en mouvement est un nouveau parti politique qui va, qui va faire un changement le changement ici au, au, Sénégal, le changement en Afrique, le changement dans, partout dans le monde. Donc Hassan sera connu partout aussi dans le monde. À l'Assemblée nationale, je pense que euh, changement, le changement qui va se faire, tout le Sénégal verra qu'il y a un grand changement. Parce que ce que Hassan a préparé pour les législatives, si, si, aura la majorité, donc le Sénégal va changer. Les gens qui sont à l'Assemblée vont changer leur comportement. On va voter des lois, les, les, les, comportements, les, les, comportements des députés aussi vont changer. Donc tout ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, ça sera utile pour, le, pour, la population sénégalaise et, et puis euh, pour tout le monde entier. Côté santé et éducation, avec le président Alassane et Varef, il va changer ce qui se passe ici dans les, dans les hôpitaux. Donc quand, une fois que tu, que tu tombes malade, donc, la, la, la, seule chose qu'on doit faire, c'est donc veiller sur le soigner, après faire les autres soins qui vont venir. je pense que bien. bien, je suis très confiante. De, je, parce que avec ce qu'on a fait aussi, peut-être euh, c'est peu ou c'est pas peu, mais on verra. Donc Dieu seul, Dieu seul sait.